jërë ngeen jëf mbokki téléspectateur people 221 ñuy suivre ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di ñaanal sunu kilifa di nekk sunu kilifa day di ñaan Sénégal yàlla na sunu borom doole jàmm tey nag ma dalal sama père sama xarit <laughs> sama sama patron xam naa tey émission bi nag ma mënul sérieux parce que tey moom damaa ñëw li ñaan taalibe taalibe daa ñëw këram tey damaa ñëw sama kër sëriñ moo tax xam naa di ngeen xaw a jaaxle ci ni may présenté mu di guy gi nekk koo xam ne vraiment moo ñu dalal fii biñ nekkee xale ba ñu nekkee mag ci ay loxoom lañu nekk mu tette ñu teete yu baax ba tey mën naa ne ñi mu formé ñëpp amul kenn koo xam ne di nga ci génn ñu lay ñu naan ñu naan ni nga mel wala di nga génn amaana ku ci génn rek lu rafet la ñu gis ci yow mu doon loo xam ne dañu koo tette maak samay morom moom lañ fas yéene dalal nag fas yéene seex ak moom waxtaan ah patron lay bàyyi nga nuyoo ñu lay siiw waaw 95 damay wax ni auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw ban sant yàlla julli jënd bi sant suma ñaari waajur di nuyu waa Canaba Seck bu baax Baye As Seck yàlla oyofal yéen bi Baye Abdoulaye ak sama xalifa général maam Cheikh Ahmed Tidiane yàlla yóbbu leen àjjana. di nuyu suma papa ak suma yaay suma grand frère Mourou su booy nekk ci kër gi ñoom Bolo Pape dooy Dëgg booy xam ni vraiment xam nga maam am euh, Lamine xam nga Omar Der. Lamine Espagne Italie France Lamine bu Lamine bu Sonko soxlaay wax xam nga di nuyu sama grand frère Nas suma yaay Waré Sarr ak Thiama ak famille Waré Sarr bi yëpp di nuyu ñëpp ñi xam ne vraiment ñooy béggee guy gi. di nuyu tamit ñi nga xam ne vraiment dañ may jàppale te yàlla tax te dara xewul di ma jàppale muy ñu xam ne vraiment duñ bëgg sax ma tudd seen tur. waaw euh, di nuyuwaat ñëpp waa waaye suñu grand frère Lirou Diane monument. di nuyu suñu xarit suñu mag mali Gakou. gis nga ko dimanche samedi bi paase ak dimanche bi vraiment taxawaay yi mu daan taxawaat ci booy yi. Mm-hmm. muy taxawaat yu am solo vraiment yu booy di soxla. Mm-hmm. benn booy buy bëree rek vraiment mu dem jox la enveloppe jàppale la ñaanal la loolu booy loolu lañ manqué. Mm-hmm. defe naa ne booy yu mbëri ndaw yi euh, bu ñëpp amoon ku mel ni comme ni ko Boyed waxee ku mel ni Malick Gakou rek. Mhm. làmb dina gën a defar parce que mbër mu ndaw moo gis rek bu ñëwee di la seet si billet la la indil da ngay gis benn booy boo xam bu yoree saak bi rek billet yi ciy nekk. Mhm. ndax nga jàppaloo ko te Malick Gakou vraiment. Mhm. booy amagum combat yëpp vraiment taxaw na ci taxaw bu am solo. te man loolu róor boobu ma taxoon tey vraiment ñu toog di waxtaan ak suma galan Riiru Jaan ak Alioune Seye ak booy yëpp moom loolu attente na ko quoi vraiment. di ko ñaanal yàlla rek lu mu mën ren rek déwén mu mën lu ko ëpp li mu dugg ji muy élection présidentielle yàlla jox ko ci ndam la yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla def. Mm. du nuyu ñëpp ñi nga xam ne vraiment ñooñu seraan 221 people people 221 wala benn la rek nuyu suma turandoo comme ni mu ko waxee 95 euh, waaw. dinaa wax nag waaye di nga dégg loolu moom ba yaa ko yow xam nga sax loolu waaw su ma rakk nga su ma doom nga sax comme ni nga ko waxee vraiment ndax yow la woon ak ñoom maalik ñoom Jili Bolo. Mm-hmm. nekk ci kër gi. boobu Pape Ndoye mii tey ñëwagul hmm, xam nga nga ñëw ci kër gi vraiment euh, ma tegoon la benn dof bu su boo xam ne sama turandoo yëpp yaa ci gën a dof waaw turandoo yëpp yaa ci gën dof ay dàll nga doon sol yoo xam ni kenn xamul dàll lu mu nduru toog ci buntu kër gi malal ma ma booloon ak yow malal naa ne kii da bëgg ma ne ko kan mun ma kële toog ma ne ko keeg boobu mun ma kii yow rek la bëgg yow la tuddee sa bopp sol yére boo xam ne kenn xamul yére lu mu doon toog fa suba du may nelaw chaque mm. jour 95 bëgg a génn bëgg maa xaar ci buntu kër bu ñuy tëdd non dama lay présenté dama lay présenté non desagul lii commencement commencement bi doo xam tuba yi lu muy sol naaju tàng yi blouson daal muy sol da koy takk ba ci kaw man ah? man kii wér na mu ne ma wér na kay bañu wér man wér na mu ne ma wér na ma ne ko yow kañ nga ko xam mu ma yàgg na fu ma dem 95 faaw dama naan génn sax ñu ne ma sa turandoo baa ngi xaar. waaye jotaay yoo xam ni vraiment samay doom lañ. su may rakk lañ ñuy jaar jaar boo xam ni. jaar jaar boo xam ni comme ñi fi nekk ni tey muy John Sina ak ñëpp ñoom ñëpp. kóoleel lañ seek ak jàppante. tey nag fi ma njëkkee. combat yi. Mhm. ñu bari nee nañ guy gi léegi mu bi. na làmb parce que am na ñaari avance fi ñëw ku ci mel ni a nekk làmb. non ñoom bu la neexee ñu wax loolu parce que tey comme li ma la wax rek. man politique ma mais dama am yaay ju politique muy Woré Sarr am mag ju xam ne doomam la muy nas am am yaay joo xam ne tamit doom Woré Sarr la muy caama ma tuddee ko sama taaw nas tuddee ma taawam bu góor kon foofu mbokk la du politique kon te Woré Sarr musuma yóbbu ci politique Malick Gakou tamit musuma yóbbu ci politique mais Malick gàkku li mu soxla mooy élection présidentielle te gàkku Gakou waaye lépp lu fi waay di yëngu rek gis nga maali gàkku du ci sax jàppale mbër yi. Mhm. comme ni ko sama yaay Woré Sarr di defee. Mhm. moom noonu tamit la koy defee. Mhm. mais ñoom ñaar bokku ci tey domaine bi ñu jëm. kii député la ministre la. maire la. mais kële dafa soxla réew mi. te bu soxlaa réew mi ñun waa Géejawaay war nañoo mën a jug. nekk ci ginnaawam. ba won ko ni carrément li nga doon defal waa Géejawaay tey fay nañ la ko tey bi nga wootee gis nga leen. te loolu am naa ci yaakaar woote bii muy woote waat dina xam ne waa Guèye wuusi nañ ko. mais kon is loolu xaaral xaaral xaaral da nga laaj ci politique ma leeral quoi après oh, souvent c'est pour ñi seetaan ñu xam ba xam boo nee politique day mel damay politique. Mm-hmm. Malick Gakou lu mu soxla suba ba ngoon ci Guédiawaye du tudd tur mais di ngeen gis image yu garaaw ak yeneen nit yoo xam ñu nekk ci ginnaawam parce que lu mu ji mm-hmm. man yàgg naa bëri ba pare mu jàppale ma. Mm-hmm. yàgg naa dem États-Unis moom may jëndal billet yàgg naa toog mënu ma guy Malick Gakou sama mbokk la. sama yàgg naa toog mu ne ma guy foo nekk guy dama la ne moo ñëwal kër ga ma ñëw mu defal ma teraanga. kon tey Malick Gakou ba soxla géejawaay ñu génn jàppale ko képp ku fi nekk loolu force la da ngay génn jàppale ko loolu. te bi muy jàppale booy lii di jël ay enveloppe di leen jox tey boobu lii xewagul. mais bi ñu toogee keroog wax dana ma kat li ma mën a defaat gën a jàppale booy ba bu ciy bëreeti wax ma kan la. chaque jour moom may woo ne ma kuy bëre suba dimanche wala samedi. du ma xaar sax man ma woo ko. mais loolu tey dafa jot ñu leeral ko man ku ma defal lu baax dama koy rey dama koy fay. su la nit defalee njekk lu maam Ousseynou Xaar daan wax bu fekkee loxo mënu koo fay bu làmmañ noppi boo dee gor nit du la defal lu baax nga noppi. man sagam boo ma deful dara laa naan defal nga ma waxoon nag boo ñu defalee defal ma defal sumay rakk. amul benn booy bi nekk géej waaye kontaanul ci Malick Gakou muy mbër bu ndaw ba ci mbër bu mag. kon duñ mun lu dul lu mu dugg di dugg jëm élection présidentielle tey jii. Malick Gakou mën na soxla candidat nekk présidentiel. ñun ñu nekk Guédiawaye jéggaane fi di dem di jàppale beneen nit. ñun du nit. te Guédiawaye dafa dafa jot ñu am eh, eh, eh, ñu ñu am président boo xam ni banlieusard lay doon. mais Malick Gakou moo bëgg Guédiawaye Guédiawaye ñoo ko war bi mu ñëw Guédiawaye dafa def ay cinquante presque ay ay na milliards bu manqué xuma milliards. boobu amul cent cinquante mètres carrés. Malick Gakou bi bi ma yëgee ni état bi mosu cee am birig mais loolu mooy nit. kon nag defe naa duñ xam loolu ci moom tey nekk ci ginnaawam muy ku logique ku ku jub ku baax. ku bëgg waa géej waaye bëgg ñëpp. waxuma la dara gën a bëgg suma yaay waree saar. tey jii moom ñaar bu ñeexul woon barki seexu tijaan doo gis ma nekk ci ginnaawam. mais lu ma njëkkee guy guy sama yaay. kooku kooku ah. wax dëgg yàlla ah barki dem bi ma demee yoof tey ki ma daloon muy Sila. kooku mook su ma yaay ñoo nekkoon PDS bi ma woowee benn bis ñu waxtaan ba am na ma li tax ma bëgg la sa yaay moo tax ma bëgg la wala Sarr ñoo bokkoon mm-hmm. keroog bi ma ji dama dem appel ba dalal ko. Mm-hmm. na ko colère gi nga amal su ma yaay wala Sarr moom lay fétali. d'accord léegi man du ma dagg colère. Mm-hmm. man nit mooy dagg sama colère mais man du ma dagg sama man nit. man nit koo mën a doon ci kaw suuf dinaa la jox sama bopp wàcceel sama bopp mais boo ma cofee ma bàyyi la. benn nit laa xam ni comme ni ma ko doon waxee. wala benn kër ci kaw suuf ñoom ñoo ma mën a mere man mu mette ma muy Kër Ware Sarr mais du benn nit ci àdduna parce que lu tax loolu biñ ma tegee dof ñoo ma def nit. ba tey ma àgg fii jàppale ma ba fu jàppale am. dugal ma ci kër takkal ma jabar indiqué ma. kon ñooñu tey luñ xool ci man luñ xool ci man lu dul xool ci man lu dul lu positif. leneen luñ xool ci man lu dul leneen ku ko keneen ku ko xool ci man ku bàyyi la yow moom moo gën a yow man ma bàyyi kon su may wax tey li nekk suma xol laay wax xam ne man mii ànduma ak Malick Gakou ngir politique mais dañu ànd pour dajale waa géej waaye gi yëpp. bala bala nga naan naam nekk fa bala Malick gàkku di gën di dem Parcelles di dem Thiaroye di dem Pikine bu gestu di dem Bia waa Biafra xoolal waa bi Biafra keroog. dañ ma woo ne ma eh Malick Gakou la ñuy xaar bu ñu wootee dinañ jël 10 car. Mhm. ñëwal ko ndax yow. Mhm. ak yeneen ak yeneen yoo xam ni xam nga. am na ñu koy waxal. kon defe naa loolu boo ma laajee politique dinaa ko leeral du politique. d'accord mais suñu frère la man mu ma nag te yàlla tax dafa ma bëgg. Ah gu gu gu day day day nekk ak moom comme morom. Mhm. comme morom. Mhm. mais loolu bu la nit ki joxee loolu da nga koy delloo. Mhm. te lim soxla géewaay ñun mbëri yii incha allah buñ génnee di nga xam ne moom après li des moom ci ginnaaw la amul mbër mu nekk ci kaw suuf fii. nga nekk ci tête de liste waxuma mbëri ndaw yi nga araamal xaalisu Malick Gakou. Mm-hmm. amul mbër bu nekk géejewaay tey ci fii fii fii ci tête de nga araamal xaalisu Waré Sarr wala nga araamal oto Waré Sarr. Mm-hmm. am na oto Waré Sarr boo xam ne nii. Euh, Prado la. Mm-hmm. ba mbër boobu di bëri ji moom lañ ko jox mu yóbbu ko ba tey fa la yàqoo mu ñëw. ak yeneen ak yeneen. maa ngi jox benn anecdote. Balla Gaye tey mii au passage di ko nuyu suma frère benn bis dafa ñëw na ma yow da nga yaakaar ni yow rek yaa moom Woré Sarr. Mhm. nañ dem mu jox ñu ci xar yi. dem fëgg buntu kër këng këng këng këng këng bi maire bi tiim si ko kooka la man la Omar xar laa jël si. Mhm. maire Woré Sarr li mu koy envoyé noonu mu envoyé ko noonu mu ñëw. mais loolu geste la boo xam ne man la sigil tey ay yeneen ak yeneen yoo xam ne mun naa koo wax. Mhm. nit bu defee lu baax da nga koy ak yeneen ak yeneen. man man du ma nëbbu jëfu nit. kon bu ñu damay politique lu baax lu ñu def la ñu war koo tas. kon bu gàkk ñëwee tey taxawee côté social boobu avant lii ñëwagul tey ñun ñëpp a war a génn. Mhm. man nag du ma ne waaye pastel caare yu ñoo ñëpp. Mhm. amul koy dëpp micro mbër bu mag mun la aramal naa xaalis Malick Gakou. Mhm. koy dëpp micro communicateur terre. ñooñ di wax. communicateur communicateur waaw mu la aramal xaalis Malick Gakou. Mhm. koy dëpp micro micro central ba ci làmb ñu mu la aramal ma xaalis Malick Gakou. Mhm. ba ci ñi dem Màkka. Mhm. géejewaay dëj yi. ngént yi jumaa yi. mais kooku bu soxlaa géejewaay présidentielle te kenn woote fu présidentielle. kooku boo dee nit d'investir boo ànd ak moom doo nit. d'accord léegi avance eh. avance Zarko bi nga delloo. waaw loolu moom dinaa ci gàttal. parce que daf ma woo waaye daf ma woo Ibou Laye bi ma ma ne ko combat bu ma njariñ temps laa koy bëri Ibou Laye woo ma directement ma ne ko dangay wax ci man lu rafet fompul man ko dangay wax ci man lu rafet. Mhm. chaque jour bu la joxee micro man yow la de man am naa mouchoir man ñaquma sax man ko danga dangay wax ci man rafet chaque jour bu la joxee maa lay suivre fii moom lu nit di wax rek. Mhm. nit mi koy ma ne ko nag wax dëgg yàlla. mun ma temps laa bëggoon yàgg gisal ko ma bëre ko ma ne ko bu doon temps sax du ma ko bëre. lu tax waaw doo déglu combat amul ma intérêt. ma ne ko nag lii laa koy bëree mun ma après kon baa ma taxawal jéen kayre kii ma ne ko yàlla ci yàlla defal lu kawe sa njort yow jantal gayaan nga te dama koy suivre. Mhm. te incha allah bis bi man lu ma ci war a def sama participation muy ma teew yëngal mu fekk ma Sénégal naa ko def ndax Ibulaay ku ñu war a pousse loxo la. Mhm. pour mu génn ñu bañ a gor tànk yi nag. parce que mbër promoteur bu ndaw moom boo yegsee moom boo kiiw rek dañuy xaw a gor sa tànk yi. Mm-hmm. mais ñu dimbali ko rek ba xam ni dafa bokk ci yaakaaru promoteur yi promoteur yu bëri génn nañ loolu leen génnee. d'accord léegi eh. Diène Kaïré nag avant sama mosuñu la ko proposé. waaw ba tey yooyu tamit intéressé wu ma ko wax dëgg yàlla boo bëggee dëgg yow kii xam nga sama sama jikko. Mm-hmm. man ma yàq lambu. du ma ànd ak kuy dem signature di yàq lambu. Mm-hmm. du ma ànd ak kuy dem lambu di yàq lambu. du ma ànd ak ay de yooyu sax dina ñëw ci kanam mais du ma koo xam daal dama yàq lamb man. su ma manager ngay woo su ma manager wax ak yow. bu xawee ñagas tuuti parce que ménager bi lu mu nekk nekk sa ménager da lay hmm. pour ñu xam ko mu woo ma nag bi ma woowee directement ma ne ko les point barre. Hmm. ma ne ko loolu boo ko joxee Eumeu Sène wala Gris Bordeaux ku ci d'accord yow xaajal sama xaalis sax man nga fay ma. Hmm. ma bëri ñoom kon bëgg naa bëri. mais daam fu may teg sama tànk. parce que ki ma daan. tey bu mu tax rek tey mu tournewaat di joxaat booyu loxo. Mhm. parce que jox leen loxo moo tax bëri naa fa ñett nit dama leen a joxlo bi may ñëw. Mhm. lii fekk ma ci. Mhm. waaw du ma tudd tur mais ñu bi may bëri ñoom maa leen sut kase maa leen sut palmarès. kon tey war naa àgg tey sama morom fu ñu àgg. d'accord yee dama am palmarès. am carrière am ñu ma bëgg. sa combat ak Siteu gars yi nee nañu revanche bi est-ce que nga pour jox ko. <laughs> non boobu moom dama noonu ma ci waxaat parce que buñ ko dëppee micro bi nee xuma lan ba jamono ba tey seetaanu gu ko wax rek quoi mais ma yëpp moroomu naa euh, li ma waxoon démb du ma ni cité démb dafa baax tey man dafa bon vraiment musuma dégg mu lu jóge mm-hmm. la akan keroog maa ngi ko wax naan ko jiili man maay mbërëm mm-hmm. bu combat bi taxawee tey garaawul bàyyi ma defalee rek mm-hmm. di tooj Abdou Seck naan ko bu tax combat bi taxawee tey moom garaawul Abou Seck jaar ne ma jaar loolu mooy làmb Siteu moo a may xaalis maa ko may xaalis. tey jii Siteu mun na maa bañ a jël am xaalis. mun na maa jël am xaalis. loolu lépp te dañuy bokk ndey ak bàyyi. mais na wax ji rafet wax ji mooy tax violence du am te loolu laa koy continuer ba may tekki ngemb. Mhm. xanaa liy problème moo wax ci Siteu mu mu woo ma allo bu waxatee ci man. kon a dégg ma wax ci Siteu mhm. mais fekk maa xam lu baax ci moom dinaa ko wax lu ayib yi mu nëbb ko mhm. loolu nañuy doxee ku dul Siteu sax loolu laay wax moo tax mhm. nga dal ci kawam wala keneen nee fekk sax ore ko demeewul noonu waaw te yaa fa naan bu doon ñetti fan déggal te ko bi may nekk États-Unis boobu bëri xaajaguñ sax bay bëre man ak moom ñu toog di waxtaan quinze minutes ba vingt minutes mu fekk ma saal ñuy waxtaan moom grand frère yow li Mhm. ñu génn ci bunt bi muy bëre xooma ama ne xoomoo yooyu tey làmb du tax tey ñu yàq loolu. Mhm. loolu lu ndaw la mais lu rëy la ci man. Mhm. waaw kon def naa kon Siteu daal foofu lañu koy tegee. en tout cas daal bu paree revanche moom buñ ci waxaatee ba ba d'accord. Hmm, guy gi New League mooy ñëwaat guy gi boo xam ni vraiment New League bu bees coming fire man I mean coming fire man xam bro daal boobu mooy ñëw. d' accord na am nañu combat boo xam ne nag sénégalais yu bëree bëri dañ koo bëgg. ni combat jànq la guy gi Moussa mais lan mooy problème bi. Moussa Ndoye non Moussa Ndoye suma feral duñ bëri ah ñoo bokk Père Ngouda ñoo bokk Père Ngouda bëri demal beneen duñ bëri Moussa Ndoye ñoo bokk Père Ngouda. canaba per canaba fi per ngóode canaba keroog suma tànt au passage di nuyu Cheikh ak Gora Gueye di ko jaale sama papa Pape Gueye di ko ñaanal yàlla seen yaay joo yàlla yóbbu ko àjjana mm-hmm. <coughs> ñoo fa nekkandoo woon. Mhm. bokk cana ba loolu bëri xaju fa. Mhm. fii kenn ku ne am sa mbokk ci làmb ji. Mhm. waaw kenn ku ne da ngay bul daw polontoo sa mbokk. làmb ji moom sa mbokk def ko comme sa mbokk. mais nag affaire de koñ lañ wax affaire de géejawaay. mais nag sa mbokk def ko comme sa mbokk. waaw muy leer Moussa Ndoye suma frère beneen. mais booba tey yaa ngi say li ma la guy gi Kamin Faye mooy ñëw New Look di nuyu États-Unis gépp sama coach su boo maa ngi koy nuyu bu baax. Mhm. dëmb rek mi may woo mais day mer ci man des fois parce que moom loolu duñ ko wax sax ci kii boo vraiment forme bi ma indiloon Siteu xam naa bu gars yi rëbbee boo foofu ba ko. Mhm. dañ ko indi problème. Mhm. forme bi ma indiloon Siteu. moo ma ko teg. waaw ba ma ba waxtaan bi ma defee bantambaa dafa ma mere. mun ma waroon teel a génn forme bi boo di ko sant di ko gërëm boo nee ku baax. ku bëgg mbër yëpp. ni mel nii la mel ak Balla Gaye ni la mel mbër bu dem foofu du ma tudd tur même Reug Reug mii ni la mënoon ak moom. Mm-hmm. boo muy ku baax di jël alalam di ko def ci mbër yi. Mm-hmm. muy ku baax. Mm-hmm. waaw vraiment mm, waaw di ko ñaanal yàlla daal. moo ko sëñ Sidi Mokhtar. doomam boobu. mu dem ba mu yóbbu ko màkk. yàlla mun na ko yàlla ko yàlla def mais daal di ko nuyu états unis yàlla mbaa tous waaw yàlla mbaa tous. allahumma amiin waaw di ko nuyu tamit xam nga. ñi nekk États-Unis daal vraiment di ñuy bëggee. di ñuy mhm. jàppale. ku ci mel Abdou Medina di jaare Yàmmu Njaay rakkam ci génn àdduna mami. Mhm. moom doon toggal lasagne yi ndeysaan maman. Mhm. Dabel di nuyu Daam. Mhm. di nuyu tamit Laay Ndiaye suma grand frère suma mhm. xarit suma lépp. rak mhm. magi Aziz Ndiaye. ku baax. suma xarit depuis 2012 ba tey mi ngi may jàppale. waaw di nuyu ñëpp daal xam na ñooy jàppale guy gi. d' accord dinaa ñëwaat foofu ci adversaire ak nuyoo ya ah. ñu jëm benn combat muy dimanche diggante Sa Thiès ak Reug Reug combat bu laa bëgg nga analyser ma ko bala ñoo dugg ci détails waaw bala maa dugg ci détails yi li mu am keroog rafetlu ma ko gis nga nit. surtout ñi ànd ak mbër dañoo war a nekk nit. benn ci yow mii benn ci yow buñ mësaan ànd signature soo dawee yow daaw xeex mais boo dawee ba ñëw ci man man. yow yow yow rek yow rek yow noo defal naa man man ciy naturel yow rek exemple nga tey ci ci ñi ma war a wax. yow moom danaan fekk man ma def li may def ba pare moom mu daw ñëw ci ma naan ma mbër dama tàpp man ko loolu mënuma yoroo ten ma jënd dund mais yow dun jooju nga jëndoon foo ko doon jëmee ci bopp ci bopp Ama Baldé mi ko doon jëmee ku la jënd loolu dun man maay signé di mais est-ce que yow suma signature contrat sa diggante ak yàlla bu ñuy dem nas mooy force naan na diw dem na diw dem lan la doon wax. benn oto kenn du dem. barke Seexu Tijaan 15 mi du bàyyi ma fenn man leen kenn du dem am na signature yu ñu dem sax moom mii demut. Mhm. man leen kenn du dem man leen ah man ko mbëri mi may signeel maay bëreeg moom supporter bu ma laalalee daraam. dañ lay robi waaye làmb ji du am nii laa koy waxee. Mhm. sama combat ak Ama dañuy prép combat Tafatine jeex kii jeex Zos. Mhm. non Tafatine jeex. waaw jeex rek ma def déclaration. man leen CNG yéen laay jox avertissement gis naa lu ñu def Tafatine xëppu ko ko ci parc aan man su ma ci sunguf laalee combat bi du ak gaynaan dafa ragal damay artu. ñii mhm. ànd ak mbër ñoo war a yem. Sa Thiès ak Reug Reug kenn du ko tëgg naan am na promotion ak amul promotion. loolu du promotion loolu luy rey làmb la. ñi ànd ak mbëri tey lii imagine tey bu ñëwoon ci biir làmb tey. journée magan du am. wala mbëri gaañu. ñu reyaar làmb. mais mbër mu ne di jël. yow leer na ma ni Sa Thiès xëppul dara Reug Reug. Reug Reug xëppul dara Sa Thiès. mais suq koy xëpp. te leer na ma ni kooku amul njëriñ sax seen kër. di neewee ko rees ponkal mu tol quatre-vingt wala deux nangam kilo nekk ci ginnaaw mbër. jéemoo dem ni mbër mi mel nga mel ko li mbër mi def nga def ko nga ñëw bëgg a yàq làmb jàmbur li ñu doon yàqal tey du ñu rey làmb du ñu rey mbakkan wala ñu rey tey Sa Thiès wala Reug Reug ñu posaat làmb ji fu ñu jëm préparation làmb ni méttee Sa Thiès leera a néewul kenn xëpp dara man xam naa saali fite moo koy may lépp Reug Reug tamit waxi nopp Reug kenn mësul gis ba mu signé ba nañ waxal dëgg nit ki ba mu signé ba tey naan nit xëppal kenn dara mhm. mais ñoom ñooy man ak Elton dañoo àndoon parcelle boobu Modou Lo kii dafa taxaw. Balla Gaye Modou Lo Balla ñu dem ba parcelle koñu Malick Cissé. comme mhm. colonel Malick Cissé. El eh, na ma dama war a créer buzz la ma ko buzz la mënuma xaaral ma créer buzz dugg ci biir fëriñ bi fëriñ la tibb de. Mhm. di suy. foofu fees jël te fëriñ li sama kanam. Mhm. noonu la mel nag. mais nit ki loolu ñuy xëppee daanu mbër. man bëri na ak Zarko mu yor bitel xëpp ma ko ba ma tooy xepp ma jàpp ko wulli ko ba mu nooy népp bu di doo ci suuf. nañu dellu seen xel. buñ koy wax nag waxuñu pour xaxar ñi nekk ak mbër yi. wala xaxar gis nga dafa am àndandoo xam ne dafa jar di ànd ak ci làmb. ku ci mel ni Thierno Gueye ak Nas kooku am ci làmb. wala wala Leyti. Thierno Gueye Nas Leyti mun naa ca tudd tudd yu bëri. bi ànd ak Balla Gaye mais du tudd di tooñ. ak kii ak Grand Landiang. Grand Landiang boobu ma seen. Grand Landiang dafa def geste bu garaaw keroog. damaa dem Eumeu Sène euh, làmb am bu amoon estat ma ñëw di bàkku mhm. Eumeu Sène di ma tooñ di ma mais dafa bàyyi ma ak Eumeu Sène ñuy waxtaan mhm. dugg sax ci diggante bi mhm. ci laa respecté booy boobu ba tey booy saa bokkal xawma saa bokkal dafa génn dafa arrière di ma reetaan xam na ni lii ñooy mayante xaalis te dara amu fi mais da nga gis yeneen mbër la naan nii di néewi te yow leer na ma ni da ngay mel ni quatre vingt munoo daan mbër te buñ xàccee nga gëmm nañ defar tey boo bëggee guy gi d' accord bëgg nga guy gi mais gëmal sa bopp. soo dee ba xam ni ci stade benn lañ la may ñaar bu la wooyee nga protéger ko. comme mbaytin effectivement mbaytin ni mbaytin bu duggee stade. mbër mee ko ñor. loolu mooy nit kuy ànd mbër. mais bëgg a yàq làmb jàmbur. tey imagine tey loolu coow loolu Sa Thiès température bi mu amoon bu ko fekkoon liiru jaan tey. joxu ko cër man maa ngi gis image yi. Reug Reug tey tey jii tamit tobu fugam ñu dóoroon dafa Sa Thiès gaañu yàlla tere wala rërëg gaañu tey duñ puusal làmb ji rey leen bañ dee te léegi wala léegi ñu yàq dara jàmbur te jàppale yi léegi demeetul noonu ñu puusal làmb ji léegi foo jëm léegi ma àggal woola dégg nga ni ah. one second one second maa ngi def benn émission loolu anglais la maa émission ma woola léegi waaw jéem léegi ma àggal yaa ngi dégg mm-hmm. nañ xool ñi ànd ak mbër yi. mais loolu tamit est nekkul tamit moo tax sponsor yi da wane lamb ñu ni violence lamb baaxul. non sponsor yi état bi waroon lañ bañ seen sponsor loolu taxul ñu daw. war a weñ seen loxo ñëw Abdoulaye Wade bi fi a la cinquante millions par mm-hmm. mm-hmm. fi nekk ñoo bëggul làmb. Mm-hmm. wax bu ko raay da nga koy jaar ci digg bi. état fi nekk bëggul làmb. ban nga làmb da nga gis chaque dimanche ministre Abdoulaye lañ ko tuddee. ministre Ablaye Wade. au passage du nuyu sëñ Modou Niang sunu papa jooju di ko ñaanal yàlla yàlla yóbbu ko àjjana. ku goree ngi noonu. ku goree ngi noonu. ku tuddee na Ablaye làmb Ablaye ba mu jóge fi ko kone di ko tuddee làmb. ku goree mi ngi noonu loolu mooy nit. parce tey da nga ko doon ñëw na rek nga ni garaaw du ko defati. tey ñu bëri tey. def def la tuddee nit. Mhm. te kóolóore da ci am solo. Mhm. loolu rek mën naa tax a daw ñàkk kóolóore gi. Mhm. waaw sponsor yi état bi moo leen war a force ñoo ñu jàppale mbër promoteur yi fi nekk. ma ko en tant que en tant que mbër. combat Reug ak Sa Thiès ba ma ko doon analyser la. waaw combat Reug Reug Sa Thiès cinquante cinquante la. du ne géejaay toog sama photo fii kilim bi dama ëpp ma la Sa Thiès a man. du wax ci côté Reug Reug parce que bëri nañ mais. jàppandi wuñ ma ma daanu. ndax mhm. xaw ma lu mu indi xaw ma jàppandi moom moo tax xam naa ndax bu ma daanoon keroog moom wala mu duma ma. Mhm. tey waa Guèye dañ gën a ma mais au passage. Mhm. ñoom comprendre nañ ma ci côté boobu. de Brésil avant ma ñëw ci combat kon defe naa ne man li ma xam ci Sa mooy suñu rakk la li ñaan yàlla mooy ëmb ko. ànd moom di ñaan yàlla yàlla mooy kon ndam ci jour wala cinq yàlla mënu yàlla na ko yàlla def mais gëm nañ daal lim liggéey. li ma gis man mu liggéey ko ak mhm. détermination bi mu àndal. Mhm. Sa Thiès moom kenn mënu koo teeloo. Mhm. xanaa di ko wax ne rek buy song na xool fi na laal loxo bi xam fi mu jëm bu rek di ñëwee na ko tëlu ñu bëri defe nañ rek rek moo dàq jàpp. mais yàlla nañ jàppante. ñu bëri defe nañ Reug Reug moo dàq jàpp mais yàlla nañ jàppante. parce que dañ naan Sa Thiès bëree bëri bu teey mënu ko par rapport ak Reug Reug. non Sa teey man digalu ko sax di ko conseillé teey. mënu ko. loolu seen papa la woon yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana ak ña fa fekk ñoom Mor Fadam. ñoom ñoom per Balla. Mhm. Père Ndiaga Sarr ñëpp ñu fa fekk. Mhm. yàlla yóbbu na àjjana. Mhm. loolu man seen pap fekkuma jamono mi bëri mais noonu loolu bal li ci Balla Gaye mooy ci moom mooy ci Sa loolu famille loolu day am ci deret famille la mënuñu mhm. xaar mhm. waaw mais nag di ñaan yàlla bu demee rek mu fekk fa la ko gënal mhm. ñu teel a daanu kenn bañ ci am rek ñu ñëwaat ñibbiseeg jàmm ak salaam parce que suñu rakk la vraiment jënañu ko maam ah, man bokk suma rakk la Salif sama combat bi da cee sonn man sama combat bi rek da cee sonn su mënoon dugg ci géew mais ku repp ci xale rek mm-hmm. lu ne jiin nga xeeb ko mm-hmm. dooni géewal mais ku repp ci xale rek mm-hmm. lu ne jiin nga ndax mun nga ni géewal ñu naa géewal naa dangaa repp ci xale moo tax di ñaan yàlla daal mm, muy ndam boo xam dina kaw a njoxtam te am nañ ci yaakaar bu wér a liggéey na ko te xale la te mi ngi ci yoon bi te incha allah dinañ ko ëmb comme ni ñu ko war a ëmbee man ak magam ak ay rakam ñu ànd yóbbu ko bu soobee yàlla yàlla may ko euh, euh, dafa mel ni koo xam ne moom nawlawul Sa Thiès daf ko xaw a non non loolu noo ko de laa ilaha illallah rek lu mas a fonk combat bi yee ko gën a ñor. Mhm. loolu bataille psychologique la rek. même bu ñu xewoon tey bu ñu ne rukum runkum nii gauche droite rënk ruglu day wàcc jàppante ak moom. Mhm. parce que Reug Reug du xeex ak Sa Thiès. ñoom ñaar ñëpp duñ xeexkat. Mhm. mais Sa moo gën a ñor xeex xeexu làmb quoi. parce que Reug xeex bi muy xeex benn bennal boobu mun na ko def ci MMA bi quoi xàcc di xaar nga ñëw sa tànk bala moo ñëw mm-hmm. mu dóor gauche droite nga mm-hmm. xaar droite bi mu ñëw mu mën a dóor gauche bi soo wàccee mu jàpp la mm-hmm. mën a jargandalu pour téer pour mën a tëdd sa kaw te loolu du xeexu làmb bu dee Sa Thiès nag bii nag moom euh, yor na benn gauche bu ñëw boo xam ni ak benn rétention rétention boobu nag moom euh, <coughs> damay ñaan yàlla rek bu mu def rétention boobu contre Boy Niang fa ko Boy Niang ak rétention boobu loolu moo ko loolu moo ko ñàkkaloo parce que rotation boo koy def na wàcc dal na ma mag ama neex mhm. bi ma koy dóor def rotation daf fekk ma tëru ko bi ma ama neex di jël dama tegal siis fekk tër na ràcc naa bu yàgg mhm. bi mu ñëwee dama def temps pour caxabal ba ma mhm. mu dëgër noonu muy jéem a ñëw di ma kal ma xam ne sama tànk yi boolewu ko mënu maa kal mais boo defee rotation boole sa tànk yi rek loolu baaxul quoi di ñaan yàlla daal bu ñu àgg foofu ci état de forme ñaari mbëri ñoo ñaar mais combat bi moom mu yàgg sax Thiès la gën a arrangé quoi. mu yàgg waaw mu yàgg moom la gën a arrangé. Hmm. Hmm, moom la gën a arrangé parce que. Euh, ñun ay mbër lañ koo xamante nañ. Mhm. waaw bu fekkee jàppante ñoom ñaar duñ jàpp taxaw du mbër yi jàpp taxaw. Mhm. moo tax bu ñu jàppee liggéey rek ñoom ñaar ñëpp. Mhm. parce que Sa Thiès boo seet physique rek liggéey quoi. la ko lañ koy ëpp luñ koy liggéeyloo. waaw mais daal di ñaan yàlla daal yàlla may ñu ndam ndam daal moo jariñ ak nuñ ko amee nag baax na. waaw géewaay moo soxla ndam li quoi vraiment. waaw di ñaan yàlla yàlla may ñu ndam quoi yàlla mënu ko yàlla na ko di woo ñëpp ñi nga xam ñoom dañuy ñaanal guy gi. waa Canaba. fépp fu sërif nekk ñi ngi lay woo. Mm-hmm. waa Canaba waa Canaba bu mm-hmm. baax. Mm-hmm. ginnaaw yàlla ñi nga xam ni tey bu may ñaanlu dinaa ñaanlu fépp nag. waaye bu may ñaanlu waa Canaba laay jiital ba pare. doo ko génn taal sama oto di dem ci dëkk dëkk dëkkaan parce que ñi may ñaanal taxuma leen sax ñu ëpp. ñëpp képp ku may ñaanal nga dégg suma kàddu gi. maa ngi lay ñaan yàlla nga ñaanal Sa Thiès soo bëggee xam turam sax te daan ma ñaanal woo ma ma jox la turam. turu yaayam ak turam nga ñaanal ko. ci jëmm ji comme suma jëmm ji man jëmm ju xeebu ji parce que suma rakk la jox na ma boppam mhm. te sama combat sonn na ci bu baax mhm. magam suma rakk la euh, astafurlah magam suma xarit la mhm. comme rakkam nekkee suma naa ni loolu euh, sotti ci ak def ci la kon defe naa duñ mën ak ñaan bi doon ñaanal magam moom ñu ñaanal ko ko loolu lañ ci mën ak jàppale ko ëmb gunge ko ak ay mbokam di ñaan yàlla daal yàlla mooy ci ndam la cinq incha allah di woo waa Géewaay gi yëpp mobilisation bi di ko waxee waxee Malick Gakou ñu ngi lay woo nga génn. Mhm. ci bii wane ci sa bopp. Mhm. su ma Yaya Waré Sarr comme noonu. Mhm. nga génn wane ci sa bopp. comme comme man wax dëgg yàlla man ñemaam rek laay woo ah. parce que man noonu laay dundee. nga génn jàppale Sa Thiès yàlla may ko ndam ñu def mobilisation bu doy waar. génn stade du ñu am oto dañuy dox rek dox booy ku ñëw rek ñu jox la billet nga dem. Mhm. waaw mais keroog li xew ñu bari ni Sa Thiès est li ko daloon ci digganteem ak Boy Niang muy ñëw indaale mer ak keroog ni gisee Sa Thiès signature ba muy fugg ni day dem xeexi wala day dem génn est ce loolu noonu tey Sa du ñëw bëriwaale loolu. non dal nañ ñëpp yow loolu dal na ma contre Ama Balde man ak moom. Mhm. biñ leen signature bi Ama Balde dama ci. kii waaw waaw bi mu dooree commissaire. Oh, deuxième coup commandant Thioune deuxième bi. Mhm. boobu kan moo mënoon téye te policier yaa ngi fa woon. Mhm. loolu fugul am na nekk ci yow loolu mënul ñàkk. Mhm. mais du ko bëriwaale. loolu da gis ma bëriwaale ko. Ama Baldé dañu ko combat bi. Sa Thiès dëful xam ne fi ko combat bi te xam fi mu toll waa géej waaye. na. Sa Thiès moo demoon boo ko fekkoon mi ngi toog na ataaya nekk ci palais yu kenn xamul. loolu ci tàng tàng bi rek la. maa ngi Ama Baldé ba ñuy xeex tamit ba nga naan ma mbër yoroo ten yoroo ten ma jënd ma mbër yoroo ten boobu noonu jamono boobu tamit gisee ci tàng tàng ni ma tàngee. Mhm. jour boobu tuuti ma mbëkkale yéen ñëpp. Mhm. mais noonu rek ci tàng mais ba mu jàllee gis nga ba ñëwee kër ga dañoo toog di waxtaan di mbalagante kenn ko naan kii moo daw kii moo daw. Mhm. nga dégg Royes naan euh, bébé gi euh, Mbour. Mbour bu yóbboo ci bouse de ma ne ko fu ne ko mënuma ci pono oto bi la duggoon <laughs> bouse ci pono oto bi camion la bouse na ko yow. <laughs> mu ne ko yow ci pono oto bi fekk boobu Alain am na ko yor Alain. Alain Ndiago xam nga waaw. xam nga année combat Ama Ndiago combat Ama Balde lañ joxoon micro Bantamba man maa mi bali kóol man man naa nangam Ama Balde nangam nangam gars dikk dikk na ko yow Ndiago yow yaa doon wax naan yaa Ama Baldé non moom kooku xam xanaa xamee woo non non combat boobu dafa jeex mais mujj yi dafa neex. waaw dafa neex. Mhm. combat bi avant après dafa neex. Mhm, mhm. bi ñëwee suba la bi ñëwee ginnaaw suba la booy yëpp du yóbbu nañ leen police. waa pàkk yi pàkk yi di xeex. safara booy yi tooñ ko mu dem bënn seen pono ñoom ñëpp. ñu woo ma ma leen maa ngi si kër Abdou Karim. ñu bëre ba pare ndeysaan maag Ama Baldé la ñu toog kanam gi yëpp yàqu bi ñuy def euh, appartement deux cent vingt xaw ma kër Aziz Ndiaye Pape Cheikh Diallo mm-hmm, mm-hmm. sama yaram bi daw mënu ma ko xool mm-hmm. ma ne man damay bàyyi làmb quoi kon kanam gi kii maa ko def nii ndeysaan booba tey fu muy bëree bëriwaat nañ ci mais fu muy bëree dama koy conseillé waaw bu bëriwut ak waa Guèye dama koy conseillé ne ko xam nga parce que tamit loolu làmb loolu la d'accord mais tey Sa Thiès Reug Reug ci wàllu bëre ñu bari Reug Reug lañ jox euh, favori ci cadre bëre waaw yàlla nañ jàppante yàlla nañ jàppante yow sa analyse ñoom ñaar ku non yàlla nañ jàppante Reug Reug ku toog naan mënoo bëre da ngaa soxor. Mhm. ku toog naan a doole da ngaa soxor. Mhm. ku toog naan Reug Reug amul fit da ngaa soxor lébu du ñàkk fit mhm. Reug koy dof lañ koy jooyeel. mais du ñàkk fit. kon loolu léegi loolu mënul weesu cër bi ñu jox Reug Reug. mais dama ne yàlla nañ jàppante. saa ca relation macha allah loolu yàlla moo ko may tous de bois. bois moo ko may quoi. loolu relation. fu ñëwee mën naa bëree noonu. mais Reug Reug poids bi mënul bëree relation. Ah, parce que maa ngi dégg euh, Sa Thiès naan ko pois bii mu jël baaxul ci moom. pois bii mu jël man maa la ko wax munul bëlee rétention. Mm-hmm. te bu ko gis nga bu ko Sa gëddee daw daw gëdd ko mëb ko rëgg dina toog Sa Thiès ko dem yoonam. Mm-hmm. téere laa lay wax. Mm-hmm. yàlla na combat am ak jàmm rek laay ñaan. CNG nañ jël seen matukaay ci biir géew bi. ñaari mbëri suñu mënoon def ba benn mbëri ñëw jeexal beneen mbëri ñëw sax ñu def ko. li may jooy mooy làmb ji yàlla nañ jël seen matukaay ci biir géew bi. parce que kenn ku ne di nga am ku lay gëmloo dara naa ne ko boo ko laalee sa morom mais di Sa Thiès mi ma gis. Mhm. lu ko laalee ci làmb ji làmb ji du àgg. parce que am na fu mu teg la te nag du yoon. Mhm. nañ waxante dëgg. muy moom muy Reug Reug kenn koo xam ni war nañ sa morom war na ñi ànd ak moom war jël galaaj di la ko xëpp. Mhm. du yoon nañ wax ak ñi ànd ñoom. parce que ñooñu ku yàq ñoo la yàqal. yàqal gi mooy diñ la dañ lay bëgg quoi mais duñ xam apart dayoo fi mu yem. bu combat bi àndoo rey nañ la. su kenn gaañoo rey nañ la. loolu baaxul côté boobu laay waxee. Mhm, mu ngi noonu ah moom lañ dalaloon muy muy muy sama directeur di sama patron ah, di sama père vraiment li mu wax lépp nag moo nekk xam maa du ñàkk ni incha allah dinañ fi ñëwaat avant combat bi tey tey lan ngay ban message ngay lancé ci côté violence bi ak ñi nga xam ne ñooy dem làmb ji aussi. waaw côté violence bi moom ñun waa Guédiawaye wallaahi wala zim doo fa gis violence. Mhm. parce que tamit sunu mbër lañ xam. Mhm. violence wul moom violent wul moom li mu bëgg arbitre bi rek mu génn dem. Mhm. chaque jour mi ngi koy wax. kon defe naa liñ ko def keroog am na fu liñ ko def rek loo xam naqare na ko. Euh, te loolu daal na mbër mu nekk ah. Mm-hmm. am na mbër yoo xam sax dem nañ bi biir stade. Mm-hmm. ñu def leen loo xam ni toj seen bopp àggul. kon mm-hmm. loolu defe naa ne ñaan yàlla ma bañ am ci combat bi. mais daal di wax ne waa Guédiawaye ñëpp nañ génn ak maas. ñëpp xam ni Guédiawaye Balla Gaye euh, euh, kii Sa mi ngi départ école Balla la nekk di départ kër Magam. seen kër kon defe naa ni Guédiawaye la. di waa Kër Massar gam nekkoon nag waa Boune yëmbal. Malika benn barak. Euh, Asegna Daaru Alba ñëpp boo yëpp génn dox dem esat mhm. nekk ci ginnaaw Sa Thiès mhm. yëngal ci kaw mu li lijjanti ci suuf yàlla may dem ñibbisi mhm. waa Géejawaay tamit di la wax ni waa kee caaro yi ñu ñëw en masse comme noonu jàppale seen mbër ñu génn parce que mbër li koy dooleel mooy jàppale ko xam nga caar autorité caar yi war a jëndal rek rek billet yi jàppale ko ci billet yi làmb dafa metti mm. dimbale ko ci billet yi bu taaral stade bi mm. def ah, di nuyu waa deux cent vingt et un people bi people deux cent vingt et un gi yëpp mm-hmm. dina wax ne vraiment mm-hmm. am ngeen ku gëm boppam mm-hmm. bu li ma ko waxal lépp dëgg la nag am na ku gëm boppam ku bëgg liggéey wax dëgg yàlla su turandoo la sama turandoo yëpp moo ci gën a dof waaw ku ma bëgg nag man ma xam daf ma bëgg. Mhm. ku gëm boppam bëgg liggéey gëm lim nekk. gëm ki mhm. muy àndal yéen waa mhm. deux cent vingt euh, yaa euh, euh, People deux cent vingt et yëpp. sama fans yi na ngeen dem ji jàppale sama guy gi. sama rakk la sama <laughs> doom la. vraiment kon du ma mën lu dul sitam bu ñëwee di ma jël si ma wax képp ku may seetaan di sama fans demal abonné ji deux parce que nit la ñoo xam ne vraiment. ñoo àndandoo ñoo bokkoon suñu sombi di lekk suñu ginaar di lekk suñu lépp moom rek moo amoon ma tekk sama ngemb jox ko. wallaahi. moo amoon droit di bëre ma jël sama benn gàllaaj bi may takk te yaakaar ko jox ko. parce que daf ma bëggoon tellement ba ma xam ni kii moom daf ma bëgg sax ba tey mais dama ko mere woon. tey mhm. ñëw xam nga dugg sama néeg ma génn jox ko na ko demal. sama ngemb laay jël jox ko. Mhm. sama gàllaaj laay jël jox ko mu sangoo maa koy sang gàllaaj man nii. mais bi ma xa demee ba xam ni loxo bi bu jugee mu gëmm dama taaral sama bopp dama ko ni kat quinze. wax dëgg sa bopp dama wuti koo tuddee sa bopp mu ne ma mbër ma ne ko dama wuti koo tuddee sa balaa ñaari ñu dégg parce que yow bu loxo jógee nga bañ ne na doo nekk wala tey bu la mbër mi tëkkoo ngay xool foo jaar ci tànk yi yow moom doo nekk mbër te ni ma ko waxee moo nekk 15 mën nga ni kuy kuy 95 bu signé yow contrat billahi say mbokk duñ nelaw waaye bu dëkk estat ba wëngaloo xott yu baax yi. waaw di ñaanal ñëpp jàmm daal yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla parce tamit vraiment. li ma bëgg a wax ci moom lépp su ma ko waxee tamit mun na am ku mu dëpp di site nga ne ko yow nangam tey li ma ko wax moo nekk wax dëgg yàlla moo mook Fadam 2 Fadam 2 tamit noonu la meloon Fadam 2 bu kër fan jógee mu mu mu mu du bëre Fadam 2 bu kër fan jógee mu ni du bëre moom moom moom moom loolu nëbb ko réewul kaful réewul sama kanam gi danaan kenn du ko yàq moo moo toogee dégg mu ne ah faram yaa ngi analysé ma ah doom day ma ne ko ma wax mu ne ma manit ma wax ma ne ko ah loolu lépp artifu làmb la mënoon nañu ko nettalante leneen loo xam day ñaaw tey faram su ma jëlee damay wax 95 su ma jëlee damay wax kon loolu tey nettali boo xam ne tey ci làmb la des di ñaan yàlla daal ñu nga xam ñoo bokk làmb ñoo la soo goj ñu ñu àndal ñun bëri ñu defaraat su suñuy toogaay ku ñu àndal ñu la kat làmb ji li lay bañ li lay nangu ndax làmb ji gën a mën a dundiwaat di ñaanal ñëpp jàmm di wax seen doom mi ngi ñëwaat boyantoo incha allah te dina ñëwee nu bees tàq. Mhm. koo xam ne daal bëggoo say mbokk lëng la ci kàttan Seydina Mohamed bu la joxee avance bu ko jël. Mhm. man kafuma réew ma kaf ko def uma beneen métier làmb laa am. Mhm. te dama arrière pour defaru pour ñëwaat. Mhm. te incha allah bu mu ñëwaatee dañu xam ne ñëw na. Mhm. dafa am ñu ma bëgg ca làmb. samay tàkkusaan ñëpp ko yàkkamti. samay signature ñëpp ko yàkkamti. dañ may woo téléphone guy lu xew lu xew lu xew bu mu rus mais du ma ni lu lay ñu ngi jégalu bëggee wuñu ko noonu mhm. mais bu ñu waxee lu xam ne lu jub suñu borom la ñun jaami xeebu lañ mhm. tey kontaan naa ci seet si bi ma suma turandoo seet si mhm. duñ mën lu dul tak wax ni kontaan nañ ba ñu wax ni kontaan nañ ku gis ne ma développé développé nga xam ni kontaan naa nuyu sama gara Sila borom naa TV du nuyu jabaram na bu Diagne nit ku baax la dem nañ fa appel bi yoof vraiment dalal nañu teral nañu muy nit ku baax Sila du nuyu Cheikh Gueye mi ma booleeg moom nit la ko xam ne vraiment kenn la képp ko xam daal yaa ngi jàppale guy gi guy gi mu ngi lay nuyu ma kenn nag su ma limee damay juum. Mhm. Lamine Espagne Lamine Espagne Italie France Lamine bu Sonko ñu ngi koy nuyu di nuyu Marie di nuyu jëkkëram Maurice di nuyu Père Lay mhm. di nuyu euh, Omar Der mhm. Lamine Niass. képp kuy seetaan site bi daal ñoom bàyyi ñi fi nekk seex képp kuy seetaan site bi ñu ngi lay nuyu. di la gërëm. di la ñaanal yàlla nga ñaanal suñu combat yi ñu jëm yàlla may ci ndam surtout suñu dimanche la cinq Sa Thiès ci digganteem mook Omar rek rek yàlla may ko ndam yàlla mun na ko. Mhm. yàlla na ko yàlla def. di jégalu ñëpp jaajëf. donc mu ngi noonu ah yéen ñi nga xam ne yéen a àndoon ñun li mu wax lépp nag moo nekk vraiment euh, fii ñun. léegi sax lañ commencé yor téléphone nii di sinab ak lu dugg lu nañu dugg ci mais fii. sunu waa école bi nu ñuy nuyu ñëpp xel day fattu ku ci mel ni Père Djil sa consultant. Mhm. <laughs> waaw damay bañ mu dem mu dal sa kaw. mooy consultant sunu Paada Paada maa ngi lay nuyu bu baax sunu président maa ngi ko ñu ngi nuyu. ñu ngi nuyu Père mhm. Saare Mao Djili Wadd mhm. di nuyu kii euh, Père Gora Faar. Amady Laye Gunaas. buuna ñi nekk ci ñi ñi nekk ci eh, eh, entraîneur yëpp ñu ngi leen nuyu bàyyiwuñu kenn. Mhm. suñu rakkee ñoom Safara. Mhm. ñoom Mam Njambaan. Mhm. ñoom mbaytin Tine. Cheikh Super Jamono. Pape Ndoye 2. Cheikh Kayma di ko félicité di Ngala sama turandoo di ko félicité. képp ku nekk ci école bi Bouchiteux. képp nekk ci école bi di mbër. ñu ngi lay nuyu. di la jox sa wàccuwaay Mbaye Tine. ak Pape mbay Espagne xar xar bu yaakaar ñu ngi nuyu ñëpp bàyyiwuñ kenn. parce que su may rakk lañ gis nga cër biñ ma jox. duñ def dara te tàgguwuñ ma. duñ dem dara te dem fenn ma guy gi damay dem fenn kon loolu cër la boo xam ni. baaw mënuñu ko mënuñoo weesu foofu noonu. waaye di loo nuyuwaat bu baax a baax di la ñaanal yàlla yàlla musal la ci accident mañ bi yàlla musal rek yow boo li nga bëgg say site. nga yor ko di liggéeyaloon nit ñu ko mu ngi noonu ah vraiment li mu wax nag amuñu dara lu ñu teg xanaa du lu témoigner rek li mu wax moo nekk fii lañ yaroo mosuñoo xiif mosuñoo mar ba tey bu ñu génnee ñu respecté ñu grâce à lui jëmam ji moo tax biñ nekkee fii wax dëgg yàlla léegi sax lañu am fi du yor téléphone di whatsapp sa papa dafa ma laa dénk avant muy gaañu yow da nga sama doom nga damaa toog ak moom mhm. damaa toog ak moom mhm. papaam woo ma ba ma ñëw mhm. bi ma papaam wooyee man ak kanaandoon mu ñu ñëw toog papaam yàlla na ko yàlla yóbbu ndeysaan moom ku gaawoon jooy la dañoo toog rek paa bi ndeysaan yàlla na ko yàlla yóbbu jooy <laughs> jooy wax ma ne ko ci 15 paa bi mu ne ma ne paa bi nii la mel dénk ma ko ma ñëwaat yaay ji ñaanam dénk ma ko beneen jour ma ñëwaat paa bi toog rek jooy ma ne ko waa waa Thiès yow paa bi moom mu ne ma paa nii la day wax rek jooy ndax kooku li mu doon jooy ci xol bi la ay magam tamit. duñ ma laaj ba xam sa kër la nekk sama kër lay pare combat. Mm-hmm. sama bun néeg lay fanaan. Mm-hmm. fa lay nekk deux mois trois mois doo ko dem ñibbi seen kër. Mm-hmm. mais bi moo demee nag ndeysaan ba nga xam ni kii bu yàggee tur wi mën nañ cee jàppante ma ne ko demal seede koo tuddee sa bopp. ndax yaa ngi yàq sama der yaa yàq sama carrière te yow sama carrière nga bokk mu ma ne ko demal nga seet ku tudd sa moom malal ne ko nañ dem biñ demee ndeysaan ba muy tekk ngemb ma ne ko ma bëggoon na ko kees yow ma xam ne ndeysaan sama yaram daw ak ni ma ko kii man ak malal nañu wàcc malal ne ma non bu ko wax ne teg kii nii kii tur nit la koo am tamit euh, ku ma ku ma bëgg la daal mun nañ ci wax lu yaatu mais ku ma bëgg la. Mm-hmm. xam naa loolu di ñaan yàlla daal émission mën nañu def fii ba suba nag. Mm-hmm. waaw ah. gars ah. te li muy wax noonu dëgg laa man sama kër. 15 bi mu génne la commencé am gel de. téléphone simple la doon yor. buuse wax na ko man ko wax nga dëgg de. téléphone simple la doon yor. muy buuse moomu bu doon téléphone alu nii ba ma ñëw day waddal téléphone bi. buuse bu ne allo bay message wala day yëg ci téléphone daal la daanu. buuse mi ngay gis nii armé la de daanoo wóor na yàlla day daan téléphone bi wala mu jóg téléphone bi téye ko ci di wax ak man kon dañ ma joxoon cër kon tey li ñu def nii samay élément lañ mais dama cee kontaan mm-hmm. waaw kon defe naa di ñaan yàlla daal fu ngeen nekk rek mm-hmm. yàlla dafa leen fa jàmm ko mm-hmm. jërë ngeen jëf gaay yaa ah, xam naa dinañ fi ñëwaat ci yeneen dig daje yi bokkul ak yi di leen wax ne abonné leen mu ngi noona ah, di leen jox yeneen dig daje ah, dinañ abonné comme que wax naa ci moom deux cent euh, people deux cent vingt et un insha allah bu ngeen damaatee ngeen xool dinañ parce que comme comme que Serigne Serigne Seye jox taalibe yi ndigal man jox naa samay support du ma ne samay taalibe de jox naa samay supporter ndigal ñi ma bëgg te yàlla tax di ma topp topp leen ma deux cent su mhm. parce que lu gën a jige gën a yàlla alxuraan moo ko mhm. jeex na mu ngi noonu ah mhm. di leen jox yeneen dig daje ci suñu yeneen émission fii ci people 221 jërë ngeen jëf